أقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء حي على الصلاة وامسح عن الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء دنياك دع أسبابها واهنأ بساعات الصفاء واملأ كيانك خشية واملأ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi ginnaaw sant suñu boroom daal di koy kañ màggal ko ñaan ko mu musal ñu suñu mbonu bakkan jéggalu suñuy bàkkaar di dëggal di saxal nekk gi mu nekk buur ak jaamu gi ko war a moom kese te wetal ko ci jullitay sëlmal ci sangu sang yi suñu yonante muhammad salallahu alayhi wa sallam di ñaan borom bi mu dolli ko jàmm xéewal ak mucc moom ak ay saxaabaam ak képp ku topp yoonam ba keroog ba penc gannaaw mbokk yi ñu xam ne nattu nattu bi bàyyeekoo ci borom bi ñëw ci jaam yi loola ci règle yi dul changé ba faw la fii ak jaam yaa ngi ci kaw suuf fii ak bëccëg ñu ngi am fii jant beeg weer bi ñu ngi fi fii ak doomu aadama yi ñu ngi fi àdduna tukkeegul natt du fi jóge foog borom bi di nattu jaam yi yàlla nag buy natt mooy natt ku ko neex nu mu ko neexee du tàggu jaamam du ko laaj du ko yëgal te natt bi mën naa ñëwee nu ne mën naa métti mën naa woyof mën na ub bopp nit ki mën na cee jaaxle mën na cee caalit ngëm am sax mën na ci feebale loolu nag day dëggal waxu borom bi li mu wax ni dinaa leen nattu ci dara léeg-léeg ma nattu leen ngeen tiit léeg-léeg nit gi nekk situation boo xam ne day tiit rek tiit da koy dikkal ci anam gu nekk te du xam lan la léegoo léeg xiif yàlla natt am njaboot ñu nekk ci xiif léegoo léeg ab famille ñu nekk ci xiif léegoo leeg ab gox ñu nekk ci xiif léegoo leeg ak réew suñu borom natt leen ñu nekk ci xiif indi ay jafe-jafe jafeel koom-koom bi ñàkk a taw taw bu taw bu mat wala mu taw taw bu mat ba lépp ñor suñu borom indi lu fa jaar daal di koy jël daal di koy faagagal gën koo soxla ni ñu jël ko yóbbu bàyyi ni ñu nekk ci xiif moo tax mu ne wal joo wa naqsin min al amwaal léegoo nga am alal ju bëri suñu borom yóbbu ko ci anam goo xam ne moom la soob loo dencoon mu lakk loo dénkoon nit mu lekk ko euh, loo defoon fenn ci banque wala dara ñu def ay kayit wala ay pexe ba nga ne réer na wala jël nga ko wala daal am nay jafe-jafe nga perte sa alal léegoo-léeg mu nekk ay terrain nit tëdd ci léegoo-léeg mu nekk matériel nit tëdd ci yu bëree bëri yoo xam ne mu demee noonu la nga jaar ci ñàkk sa alal ci anam boo xam ne musoo ko foog musoo ko xaar musoo ko yaakaar nga am ci mbetteel lu rëy wal anfus léegoo leeg ci bakkan yi la suñu borom natt la léegoo leeg yow ci sa jëmm nga am feebar gooy soxaale mu tiis la lool ub sa bopp lool jaaxal la lool metti lool mënoo ci dara ma sàmba tegu la ko ma demba tegu la ko suñu borom la neex moom mi la moom sàkk la lu ko neex mu def ci yow am sañ-sañ ci yow sañ a def ci yow te du la tàggu moom moo la ko teg kenn mu mënu ko tegi ko dul moom léegoo leeg du yow mais ku la jege la am fu mu toll ci yow sori la lool suñu boroom jël natt go teg ko ci moom mën naa doon waajur mën naa doon doom mën naa doon soxna mun naa doon xarit ila axirihi mu nekk loo xam ni suñu boroom dala koy teg mu nekk góom di métti lool waaye suñu boroom teg la ko di xool ba samaraat léegoo leeg meññent yi ñuy mi ak lu noonu waa lan ko tëjee wa bashiri saabiriin yii yu métti la tiis yu métti la waaye ku ko muñ suñu boroom teg ko ko yàlla nee na kooka bégal ko lan nga koy bégalee mooy àjjana ñu koy tuddee ci kanam àjjana kooku la ko yàlla di fayee parce que lii ku ko yàlla teg nga nangu ko mooy dangaa nangu dangaa nangul yàlla dangaa jébbalul yàlla dangaa jox sa bopp yàlla yàlla ay dogalam dara génnewu la ci nangu nga alqadaa wal qadar te alqadaa wal qadar ku ko nangu borom dañuy wax ne moo kuwaafi ngëm yàlla maanaam ngëm yàlla li ko kuwaafi dëgg jeexal ko. mooy li yàlla dogal ci yow mu métti lool nga bañ ci am benn gêne ku la gis sax jàpp na yow manqué woo dara yaa ngi ci ay mbégte fekk yaa ngi dund ay tiis mais da nga koo nangu ngir jox goo jox sa bopp yàlla xam ne lu la dal moo la ko teg mbokk yi dogalul yàlla <coughs> suñu borom léeg-léeg day nattu ñi gëm yàlla di jay ñu weddi yàlla ba léegoo léeg nit ki su ngëm yàlla am muy sikki sàkk waaye ñi weddi yàlla nekk ci ay caaxaan situation yi ñuy nekk bànneex yi ñuy nekk alors ko ñun ñi gëm yàlla coono yi ñuy daj léeg-léeg ñàkk gi ñuy daj métti gi ñuy daj alors que mel ni ñoom amuñu ko léegoo-léeg suñu borom def loolu nit ki di ko gis ci lu mu nekk lu feeñ ci zaahir ci biti léegoo-léeg suñu borom gaawee mbugalam ci ku gëm yàlla fii ci kaw suuf teg ko natt yoo xam ne tegu ko ku ko weddi loolu nag du lu ñuy lijjanti suñu xel lan moo waral suñu boroom ñi gëm yàlla mu teg leen tiis yoo xam ne léegoo léeg du ko teg ñi weddi yàlla loolu du mu xel di régler parce que du mbirum xel kooku mbirum yàlla la moom lañ koy bàyyee lu tax yàlla xam lu tax suñu boroom def ko moo xam xikma yi ci addu yàlla xam loolu mbirum yàlla la du suñu mbir ñun ni ñu ko gisee yàlla noonu lañ koy nangoo yàlla la soog mu def ko am na lu ci yàlla junj mbokk yi natt yi gën a métti yi dal doomu aadama ci nit ci jaam bi léegi léeg li koy waral mooy bàkkaar yu bëri ak mooy yàlla boroom xam-xam bu mag dafay wax ni mooy la maam ibni manda ne bàkkaar jigul ku yàlla kii mooy yàlla moom day suñu borom di ko gën a jay pour mu gën a nuur ci bàkkaar yi waaye ki gëm yàlla dëgg mu ne moom jigu ko su ko defee rek gën a gis dara lu koy tegtale mooy waxu borom bu wér ak waxu yonent bi lu wér yàlla mu ne ak mbonte feeñ na ci jaww ji wala ci jéeri ji ak ci fudul jéeri ji ci géej ji yàqute yi am ci jéeri ji ak ci biir géej gi yépp lu ko waral mu ne doomu aadama yi ñoo ko liggéey ak seeni loxo kon ñoo ko liggéey ak seeni loxo maanaam ñoo sabab bi tax yàlla indi loola ngir lan li yuqahum daf leen di ñamal lan la leen di ñamal mooy ay mbugal waxul sax da leen di tooxal wala da di mbugal waaye ñamal la ko tuddee yudiqahum baada alladi amilu mu ñamal leen tuuti ci liñ jëf laallahum yarjiun ngir ñoom ñu mën a delluwaat ginnaaw bàyyi li ñuy def yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne amul aw nit ñu nekk ci benn société def ay bàkkaar te waa société ba am kàttanu téye seeni loxo te defuñu ko di leen seetaan rek bàyyi leen kenn ku nekk naan man sama bopp laay tal mu ne lu dul ne suñu borom dana bés dana ñëw mu wàccee ci ñoom mbugal moo xam ni. ñi doon def bàkkaare ak ña ko defutoon wala tey seen loxo ñun ñëpp a ci yem ku nekk dina ko yëg mbokk yi nattu bi yàlla yi nattu ñi gëm yàlla ak ñu baax ñi am na ay xikam ak ay fawaid yoo xam ne am na lenn ci ay teg si junj yenn yi bokk na ci mooy léeg-léeg xool sa ngëm yàlla fan la toll yonent bi alayhi salaatu salaam saxaaba dañ ko laaj ne ko kenn ci nit ñi moo gën a métti ay nattu mu ne yonent yi nit ñu baax ñi topp ci ña leen gën a jege ci mbaax ña mel ni ñoom ña mel ni ñoom mu ne nit ki yàlla dina ko nattu ci diineem su dëgëree yàlla dolliwaat nattu gi mu dëgër yàlla dolliwaat nattu gi ba mu yàlla mu tegge ko mu ne yàlla dina nattu nit ki ci diineem mu woyof commencé caalit commencé bàyyi ay prince yu mu gëmoon diine commencé masla mu ne suñu borom woyofal ko daal di bàyyi xam ni kii dëgërul yàlla xam na gis na test na ko gis na waa ji fu dëgëraayu diineem toll ak fu woyofaayu diineem toll. léegoo-leeg natt gi mandarga buy wane ne suñu borom dafa bëgg jaam bi tàmbalee ci yonent yàlla noox ba ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam yonent yooyu natt buñ leen tegut amul te natt yu gën a diis ñoo ko ñoom ñoo ko dund kon bu fekkoon ne yàlla dafa bañ ku muy natt dalaa bañ kon yàlla du natt ak yonentam parce que yonent yi ñooy ñi yàlla gën a bëgg ci doomu aadama yi te yonent boo jël moo gën ci aw nitam te moo fa gënal yàlla nuux moo gënal yàlla ci aw nitam nga wàcc ba ñëw ci yonent yàlla Muhammad moo gënal yàlla ci aw nitam yonent boo jël mooy kan yàlla gën a sopp ca xeet woowa kon que yàlla gën a sopp moom la yàlla jël natt ko natt yu métti yooya li muy tekki mooy kon cofeelu borom bi mu ngi ci bokk na ci mbokk yi yonent bi wax ne yàlla su bëggee aw nit da leen di nattu inna allaha ida ahabba qawman ibtalahu yàlla su bëggee aw nit foog mu nattu leen moo tax Sufyaan doon wax ni ñun léeg-léeg kenn ci ñun daana toog dundam di neex rek du am benn jafe-jafe mais day dem bay am nga tiit ndax man yàlla méréwu ma parce que benn nattu su ñu ñu seen gëm yàlla fu mu tolloon bokk na ci mbokk yi mooy yàlla daf laa bëggal yiw léeg-léeg suñu borom bu la bëggee jàppee bàkkaar yowmal qiyaam mu gaawee ko teg la ko fii ay natt pour effacer la mbugal mi yowmal qiyaam loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam wax ni ne yàlla su bëggee jaamam da koy gaawal day gaawal mbugalam fii la koy gaawalee di ko yéexee da koy gaawalee fii ci aduna mu jeex su ñëwee àllaaxira jeex na bu ko ko toppee waaye nee na yàlla su naree duma su naree duma jaamam da koy bàyyee bàkkaar yi muy def bu ko ko mbugalee fii bu ko ko mbugalee ba mu jeex mën na ko ci ñamal ci mbugal yi waaye da ko koy dencal pour mbugal mu gën a métti ba mu ñëw yowmal qiyaam nee na ba yàlla dajeeg moom door ko koo won bokk na ci mbokk yi nattu dafay fomp bàkkaar yi jaam bi def saa boo nekkee ci natt bu métti jàppal ne fompal nañ la bàkkaar yu bëri yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne amul benn julit boo xam ne musiba dal na ko ba ci dëkk bu ko jam ak la jëm kaw maanaam dëgg bu ko jam loolu lu suufee la ba lu ko gën a féete kaw ci ay natt yu métti bi ne su boroom dafay nekk koo xam ne da koy fompal ay bàkkaaram comme ni nga xamee ne xobu garab ñu muy ruusee ci garab di wadd noonu la bàkkaaram yi di ruusee bokk na ci mbokk yi mooy nattu léeg-léeg day ñëw ànd ak yiw day ñëw ànd ak lu baax ànd ak yiw léeg-léeg mu ñëw nag ànd ak coono ñu ko borom bi waxee wa nabluukum bi sharri wal xayri fitna dina leen nattu léeg-léeg ci lu baax léeg-léeg ñu jël loo xam ne fitna la teg ko seen kaw fekk lu baax lay jur ci kaw fitna la mais ci biir yiw kese moo ci nekk boo ko xamoon mbokk yi natt bu fekkee dal na ci jaam bi jullit bi liñ ko yoonal ci moom mooy kenn mënu koo teggi mu seeti nit mu jox ko ay mbir yu muy jëfandikoo ba mu deñ jàmbat ju bari dindiwu ko jéppi ay nit mere ay nit dindiwu ko tuumaal ay nit dindiwu ko nit ki dafa war a apaiser wu mu dal ànd ak tranquillité bañ a jéppi kenn bañ a mere kenn bañ a mere boppam bañ a mere entourage am bañ a mere doomu aadama yi muy jëflanteel xam ne kenn tegu ko ci bu fekkee nit mën naa teg lor moromu nitam bu toll foofu kon ñu bëri doon nañ sonn parce que ku mere nit rek def ko dara waaye jàppal ne ci coobare yàlla la jàppal ne coobare borom bi la. léegi li nga war a laaj mooy su ma nekkee ci natt lan la ma sama diina sant bi njëkk mooy muñ gi mënta ñàkk kon muñ ko bul mer bul jàmbat jàmbat gu bëri waaye damal ñaan yàlla. borom bi dafa wax ni ñi nga xam ne su fekkee musiba dal na seen kaw ñu ne ñun yàllaa ñu moom ci moom la ñuy dellu wax li yonent bi alayhi salaatu salaam wax jàngaloon ko ummu salama bi abu salama faatoo allahuma ajirni fi musibati allahuma ajirni fi musibati waxluf li xayran minha yàlla yàlla ma fay musiba bii yàlla ma fay li ko gën wutal ma lu gën fuuf balaa bi dal sama kaw nga remplacer ma ko loo xam ne moo gën ba ma fàtte ko ñaan boobu ummu salama nee na bi ma ko waxee damaa gis résultat bi sama jëkkër mi faatu muy Abu Salama dama jàppoon ne moo gën ci góor gu yàlla bind jëkkër ju mel ni moom amul bi mu faatoo ma dégg yonent bi wax ku wax li yàlla dina la teggil natt gi nee na ma wax ko yàlla may ma jëkkër ju gën Abu Salama te moo yonent bi moo ñëw takk ma kon moom gis na résultat bi bokk na ci mbokk yi mooy nit ki doyloo nangu ne dogalal yàlla dogalal yàlla da koy nangu mer ak kaas ak jàmbat ko wallahi taxul mu faju te boo ko nanguwul dañ ci am bàkkaar moo dañ lay bindal bàkkaaru ñàkk a nangu ndogalal yàlla waaw kon nangul ndogal li moo yi la jig nangul ndogal li ñetteel bi mooy santal yàlla ah, li ngay li ngay jàmbat nii mënoon naa gën a garaaw te doo ci mun dara yàlla la ko teg mënoon naa gën a kon santal yàlla te su gënoon a métti it mënoo ci dara dara nga ci mënut parce que yàlla la ko teg moo tax santal borom bi subhanahu wa taala gën a joxaat sa bopp yàlla gën a jébbalaat sa bopp yàlla gën a dëgëraatal sa ngëm gën a dëgëraatal sa diggante ak borom bi subhaanahu wa taala kon muñal nangul dogalal yàlla santal yàlla lii ku mu dal te yaa ngi ci ndogal li muy wone mooy sa ngëm yàlla ngëm yàlla gu dëgër la ku ngëm yàlla am dëgërul boo nekkee ci natt mënoo muñ mënoo nangu ndogal li waaye it doo sant yàlla jàmbat caalit ñaxtu ci yooyu ngay nekk nga xam ne li la dal il fallait que mu dal la yàlla moo la ko teg mu la war a dal foog mu dal la mu la warta dal kenn mënul fexe ba mu dal la nit ki booy doxee noonu da ngay noppalu mu la dal rek da ngay gëm na borom bi la doo jéppi doo accuser doo tuumaal doo mere kenn te da ngay doyloo ne yàlla ma ko teg ci sa biir xol nga nangu nangu yàlla ne nangu naa liñ ma teg nangu ko ci sa làmmiñ nangu ko ci sa xol mbokk yi yoonal nañ jaam bi lii mooy bu ko natt bi natt bi dalee ci kawam léegi su bëggee nag suñu borom teggil ko natt bi dafa amaat yeneen jéego mooy natt bi su daree sa kaw lii ngay def pour nangu ko mooy muñal nangul dogal gi santal yàlla soo bëggee nag suñu borom teggi natt gi amaat na yeneen jéego lan ngay def mooy jéemal tuub bàkkaar yi ngay def muy bàkkaar wax bàkkaar yi xool bàkkaar yi déglu bàkkaar yi ñaaw njort ila axirihi bàkkaar yooyu tuub ci bàkkaar nga xam ne say cër moo koy def tuub ci sa kéem kàttan dellu ci yàlla ndaxte bàkkaar ni muy indee nattu tuub dellu ci yàlla noonu lay teggee nattu mu la koy poussé ñaareel bi mooy tàllal say loxo ñaan sàkku say mbokk jullit ñu ñaan la la yàlla tegg nattu bi ngir lan mooy yonent bi alayhi salaam moo ne jullit bi su tàllalee ay loxoom di ñaan yàlla suñu borom day am kersa ba mu wàcce ay loxoom ko ci defal dara kon na lu ci yàlla def war ngaa yëg ne saa su ma tàllee sama loxo yàlla moom il faut mu def ci dara waxu yonent bi la du ma ci sikki sàkk il faut yàlla def na ci dara lu mu ci def am na lu mu ci def yàlla moo ko xam waaye ñaan bi amul pertement yëkkati say loxo ba wàccee ko amul pertement saa boo ko wàccee am nga dara léegi loolu nga am dara bu ko xeeb taxool di ñaan dàkkal place yi ñuy ñaanee nga fay ñaan diggante nodd ak li xam euh, ci biir sujjóot ci jamonoy taw jamonoy tukki jamono ak ay xaaju guddi ak boo waree bay ndogu ak yu demee noonu ak yu demee noonu su ko defee suñu borom dana teggi li nga xam ne mooy nattu gi te moment bi ngay ñaan nga bañ a ñaan pour ñaan ñu yi dañuy ñaan pour ñaan mais moment bi ñuy ñaan wóolu ñu sax ñaan gi ñuy ñaan yow booy ñaan di sikki saaka ci ñaan yow muy ñaan yaa ngi sikki saaka lu ko yàlla nango waaye ñaan gi ngay ñaan wóolu sa bopp yow wóolu ñaan gi wóolu kii maye lu mu yor du jeex. jàppal ne ku la gën a yées ci jaam yi yàlla sàkk ñaan na yàlla yàlla may ko iblis nee na borom bi bàyyi ma fi ba keroog ngay dekki jaam yi yàlla nangul na ko ko yàlla bàyyi na ko fi ba keroog muy dekki jaam yi yàlla bu nangoo ñaanu iblis ñaanu keneen suñu borom bu ko nangu waaw kon bul jàpp ne man yées naa foo xam ne toll naa foo xam ni yàlla mootul nangu sama ñaan loola boo fa tolloo ni ko Ibnul Qayyim di waxee loolu mooy al ya'su wal qunuut mooy koo xam ni def na li yàlla tere woon mooy découragé na ci yàlla te yàlla kenn du découragé ci moom ku découragé ci yàlla perte aduna perte àllaaxira loolu moo tax jàmm bu mu découragé ci yàlla bu la jara dara jaral ngay découragé ci yàlla bu fekkee iblis mi gën a bon li yàlla bind moo gën a bon ci mbindeefoon yàlla bind découragé wul ci yàlla ak li muy bon bon waa yow gënoo yées iblis nit mënoo bon a bon a bon ba gën a yées iblis kon jàppal ni am na mbaax gu ne ci yow mbaax googu rafet ci njort nga ñaan sa borom subhanahu wa nga am yaqiin ne suñu borom dina nangu sama ñaan waaye nga boole ci bañ a yàkkamti parce que yàlla nag kenn du ko ñaan ba pare di ko teg pression nit ngay ñaan di ko teg pression mais yàlla dama lay ñaan sottaleel mbir mi bu nekk boo xëyee xool asamaan wala sa xel nekk ci yàlla lu tax yàlla sottaloo mbir mi yàlla kenn du ko exiger borom bi di ko ñuy exiger koo am ci moom monopole wala koo moom wala koo am sañ-sañ kooku ngay exiger mais ki la kooku sañoo ko kon ñaanal. rafet njort te bañ yàkkamti yow lii rek nga am droit amoo droit leneen boo boo jéggee foofu rek yaa ngi jéggi frontière yi beneen bi mooy julit nay taqoo di jàng ay ñaanam askaaru sabaax wal masa bu yeewoo diggante fajar ba keroog jant bi fenk ñaan yi fa yonent bi alayhi salaam jàngale asbaxnaa wa asbax al mulku lillah ak yi demee noonu na koy wax su julee tàkkusaan balaa jant bee soo même ñaan bi na ko defaat am say naa wa am sol mulku lillah ak ñaan yi si ñëw mu jàng ko ba mu jeex buy génn këram buy dugg këram buy dem toilette suy génn yooye day fànq lu bëree bëri lu la war a dal fànq yu bëri la protéger ci bët protéger ci làmmiñ protéger yu bëree bëri yoo xam ne yëg nga ko wala yëgoo ko yooyu moo la ci mën a aar doomu aadama bi fii mu ngi def lii yu bëree bëri mën na ko aar parce que yenn yi suñu borom natt la bu muy teg waaye day am sabab. mooy sa càggante yow ci sa diine sa càggante ci askar sa càggante ci jàng alquran léegoo leeg làmmiñu nit ñi léegoo leeg bëtu nit ñi ak yeneen ak yeneen léegi nag yooyu bu la fekkee yow respecté woo sa bopp aaroo sa bopp ci yoon parce que am na nu ñuy aare damay aar sa bopp ci ni ko sharia waxee ak fi mu la jaarale su boobaa loolu mën na laa protéger sa bopp bu baax a baax moo tax xam di wax ne ñaan yooyu rawatina askaru sabah wal masa mën naa fànq balaa mën na ko dàq wala bu fi nekkee mën na koo woyofal mbokk yi nit ki dafa war a gëm ñaan yu rot ci alxuraan ak sunna wóolu ko am ci yaqin jàpp ne mooy solution leneen du solution parce que yàlla ak yonentam ñoo ko joxe leneen jóge feneen keneen moo ko joxe te nit ñi tey yooyu lañ gën a wóolu gën koo yaakaar di ci sonal seen bopp di ko jox temps di ko jox alal ah, def ci seen xel wékku ci def ci seen xol te yàlla digle ko yonent bi digle woo ko mbokk yi bokk na ci mooy ah, nit ki xolam mu yëkk ko ci yàlla saa su nekk yonent bi alayhi dafa wax ne yàlla du nangu askar wala ñaanu boo xam dafa bàyyeekoo ci xol boo xam ne waa ji xolam dafa sàggan xol bu sàggan boobu boroom xam ne firi nañ ko firi ñu nee nañ mooy koo xam ne bi muy wax ñaan gi wala bi muy jàng alxuraan bi wala bi muy def zikri bi xol bi teewluwul day wax bi rek di répété mais teewluwul sax baat yi li muy wax sens bi lan lay tekki ñenn ñi ne mooy da ciy dugg tamit mooy ki nga xam ne moment bi muy def zikr bi wala bi muy jàng alxuraan bi ah wala bi muy def ñaan gi moom xolam da koo wékk ci lu dul yàlla loolu lépp dafay dugg ci qalbin laahin xaafil xol boo xam ne dafa sàggan xol boo xam ni bàyyiwul xel yàlla kon ñaar yi bu dajee su boobaa nit ki loolu mën na doon obstacle bu rëy bokk na ci mbokk yi li gën a rëy mooy jàng alxuraan léegoo léeg bu nit ki nekkee ci ay tolof tolof nekk ci ay jafe-jafe. mu jàng alquran jàng alquran saa su ne baax na mais ci moment boobu mu gën a jàng alquran jublu ci faju jàng alquran ba pare am ci yéeney faju Ibnu Qayyim dafay wax ne ci di gën a mën a teggi balaa nattu ak tiis ci la bokk parce que nee na mbooleem ayat quran yi day faj waaye nee na rawatina yi nga xam ne rob na ci làmmiñu yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne day faj bëri nañ lool fatiha ci la bokk ayatul kursi ci la bokk ñaari aay mujj suratul baqara ci la bokk Euh, fala ixlaas yi falaxi ak naas ci la bokk ak mboolem aaya yow ci suratu taaha suratu laaraaf di wax ci njabar diggante firawna ak Muusa yooyu yépp bokk na ci nga xam nit ki di ko jëfandikoo daf koy dimbali ci anam gu bëree bëri te da ko yëpp baax a baax a baax suñ ci doon joxe misaal ci am dooley ñaan yu ci sunna loo xam ne nit ki bu koy def da koy gisal boppam te su ko gëmee gis ko te texte yi wane ko te nekkul lu ñuy laam-laame nañ jël misaal ci suratul fatiha nga xam ni boo demee ci tafsir ibn kasir bi mu koy firi indil na ko juróom-ñaari tur ci commencement wu ci muqaddimaam ibn kasir yii tur dafa rot ci làmmiñu yonent bi mu nekk asmaa yoo xam ne tawqifi la ay awsaaf la ay melokaan yu ñu jox alxur fatiha la parce que dafa nekk ci moom bokk na ci tur yonent bi alayhi salaam jox ko mooy arraqiya mooy saar yi moccaate fatiha njëriñam borom xam-xam yi ko test yépp dañ ko gis Ibnu Qayyim wax na ci lu yéeme ci Zaadul Maad euh, jàng ko benn yoon wala ñetti yoon wala juróom ñaar yoon wala sax lu ko ëpp ci mbooleem feebar yépp la borom xam-xam yi dëppoo ne fatiha da koy faj te amul exception amul feebar bu fatiha dul faj feebar bu fatiha dul faj amul loola expérience da ko wane ay texte wane ko Abu Saïd al-Xudri radiyallahu anhu nee na dañoo nekkoon mbooloo ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu nekk ci benn tukki ñoo ñu wàcc ci benn giir ci giiru araab yi ci bitti madina ñu sàkku ci ñoom ñu dalal ñu ganale ñu xiif nañ mar nañ ñu bañ nee na ñu dooru ci bitti dëkk bi ñu toog jékki-jékki dégg ay coow bi ñu déggee ay coow ñu ngi daal di dikk mbooloo mu bëri ñëw ci ñun nañu kilifa dëkk bi chef de village bi moom de la jaan mat def nañ lépp lu ñu xamoon ci xam-xam mais métti waa ngi koy sonal te mu ngi tàggoog sagoom ndax amul ci yéen ku ko mën a defal dara lu ko jëriñ parce que yéen dégg nañu ci waa ji ngeen bàyyeekoo. <coughs> Abu sa nee na ci riwaaye bi am na riwaaye dane ma ne ko ana kay ci riwaaye bi mu ne am ku ne ko ci ñun ana ne ko mën de mën naa ko mocc waaye yéen dañoo sàkku woon ci yéen ngeen ganale ñu ngeen bañ il faut ngeen jox ñu neexal jox lan foog ngeen defal ñu ab neexal nee na ñu ne leen gàtt yii yëpp. su fekkee def ngeen lu am njëriñ lu ko jëriñ ñu jox leen gàtt yi ngeen yóbbu Abu Saïd nee na euh, waa ji jël di jàng faatiha di ko tufli ci waa ji nee di jàng faatiha di ko tufli nee na saa bu jàngee faatiha waa ji yëg tawfiq yëg ak féex saa bu jàngee tufli waa ji yëg ak féex saa bu jàngee tufli waa ji ak féex ba métit bi bàyyi ba waa ji wér peng ne ko yëgatuma dara nee na ñu daal di daal di dellu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di ko koy xibaar ci beneen mooy faatiha euh, saxaaba yi expérimenté nañ ko ci faj feebaru ndof koo xam ni dafa dof ba ñu koy takk ak ay ceen xaarija nee na sama bàyyi tëx moo ma nettali dama doon saxaabi bu màgg nee na ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu nettali ne dañoo jóge ci yonent bi mu sant leen ñu doxali ko dara ñu nekk ci tukki bi nee na ñu ñëw ci benn giiru arab dal fa di waxtaan ak ñoom bu yàgg gaa ñu ne leen ñun dañoo am lu ñu jaaxal ci dëkk bi dafa waa ji ñun benn waay ci ñun boo xam ni dafa feebar ba tàggali kook sagoom complètement ba jaaxal ñu naqari deret naqari nekkal ba dañ koo tënk ak ay chaîne ndax amul ci yéen ku ñu mën a jàppale ci waa ji ba mbir nee na mooy leen axakay ah, man de mën naa ci dara nee na ñu indi ko buñ koy indi ñu ngi ko jiital takk ko ay ceen yuy direeku nee na ma xool ko waa ji ñàng lool ma xam ne kii tàggoon ak sagoom nee na ma xalaat sama xel dem ci faatiha nee na ñu dikk daal di koy toogal sama kanam nee na ma tiim ko nee na may jàng faatiha di ci moom na may gis ni muy réagir sax bu ma jàngee faatiha ëf day mel ni am na lu denc ci moom bu ma jàngee faatiha day mel ni am na lu ci moom nee na hatta nee na ba waa ji wér peñ ba waa ji daal di wér peñ dara jotatu ko nee na gaaña daal di jël ñeexal bu duun daal ñu koy jox muy géttu gëléem boole ci ay nag ak ay xar nee na ñuy werante dañ koy jël duñ ko jël mooy leen man daal dinaa ko dàq yóbbu ci yonent bi laaj ko ci nee na mag jiital gi jiital gétt gi ñëw bu ci yonent bi alayhi salaatu salaam expliqué ko mën ko gétt gi nee na ma kuul mu ne yonent bi ne ma lekkal fala amri génn naa ci sama dund man akala bi yuqatin baatil bu amee ku lekk ci mocc goo xam ne neen la dafa mu def ay neen ci mocc bañ jox ko mu lekk ci laqad akalta bi ruqyati xaqin yow li nga lekk mocc la goo xam ne ki déglu ko teg parce que ci faatix nga daal di mocc xadis boobu Abu Daawud moo ko solo mu nekk xadis boo xam ni am na coow ci boroom xam-xam yi waaye li wér mooy am na daraja xasan bi majmuuci turuqihi mbokk yi kon yii mooy taxawaay yi nga xam nit ki war na ko bàyyi xel ci situation bu toll nii ñu gën a delluwaat gën a wóoluwaat gën a wóoluwaat alquran gën ko fonk buñ ko caaxaanee xam ne lu rëy lañu am dañuy jëriñ suñu dund jëriñu ci àdduna waaye mooy li nga xam ne moo ñu mën a jëriñ alaaxira rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaaxirati xasana wa qina azaba annar rabbana iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahab allahuma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain qumu ila salatikum rahimakum allah أقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء حي على الصلاة وامسح عن الرحمة معنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء دنياك دع أسبابها واهنأ بساعات الصفاء واملأ كيانك خشية